baat bi noonu dama ko tuddee biig centre formation nu la ko waxee ne da ko bëgg taxawal mu ne nag loolu yittee ma ndax moom ab liggéeyam mooy lu jëm ci jàng ak xam ak defare ak defaru kon boo taxawalee loo xam ne dafa jëm ci yooyu nee na kon dafa mel ne dañ koy jàppale ci ab liggéeyam ba tax na mu fas yéene koo ànd ak yow te loolu nga xam ne def na ko ci nee na ab tàmbali la waaye yéeneem ëpp na loolu. sëriñ bi lii ñu def nii li ñu ci jublu mooy ñun dañ doon yëngu yi ba ñuy ndaw ba léegi fekk ci suñuy mag ak suñuy waajur ñu dema dema dema dem ba am am njaboot. di aw suñuy tànk bi yëkkati xasida yi yàlla dogal njàng mi am fu mu tolloon ñu am xalaatu bëgg mu yeesu fi tolloon te loolu mooy fas yéene mu gën a sell gën a leer gën a dem ci yoon ndax jànkatu xasida dama wax ne war naa bàyyi xel tàggat boppam ba nga xam ne suñ tubaab dellu siwaatoon mu mën a toog ci kanamam yëkkati xasida yi loolu ñu am ci bëgg-bëgg am ci xalaat am ci itam mébét moo waral ñu doon sàkku am daara biñ amee daara ji yàlla dogal daje nañ fi maam ñi may àndal ci njàngum xasida ci njiitam seen Saliou Guèye mi di fi def ay répétition ñu dema dema dema nag ba xalaat ne war nañ koy def centre formation euh, maa ngi koy jégul ci kàddu yi may bëgg a yëkkati dafa am ku ma mës seetaan koo xam ne ab tëggkat la woon mag la génn na àdduna yàlla ko yàlla yërëm am na ñoo xam ne danañ xam ki may wax kooku nag ci moom laa def référence ni kon man gannaaw nit day dund te yàlla rek moo xam fan lay yem maa ngi ñaan bala maa génn àdduna suñ borom dimbali ma ba ma bàyyi fi loo xamante ne bii ne loola day des en coordination loolu moo waral ñu taxawal daara ji biñ ko taxawalee itam wut nañ lay lay wiñ wut mooy dërëm ak ñaar dërëm yi ñu sëñ Tuubaa di jox bu ñu jàng moom lañ dajale ba miire ko def fi néeg bii def fi mbaar mi def fi fi war a dem yëpp te laaj rek ci fii ba agsi fii day aada ñu tegu xeer yëgal ko say kilifa yëgal ko say mbokk mooy bisu tey bii kon na ñëpp xam ne ñun ñu ngi tàllal ndaw loxo ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi nga xam ne dañoo nekk ci xaside yi nañ xam ne xasida yi lu waay duwut rek lu mu mën a doon moo xam àdduna la moo xam alaaxira ni ko sëñ Fallou Gala si la waxee léegi ci xasi bii la gën a gaawee ñun nag am na ci xalaat xalaat rek nag lañ am ak bëgg waaye yéen ñu mën a jàppale yéen ñu mën a dimbali ci xalaat bi kon maa ngi woon ndaw yi Touba di woo ndaw yi àdduna yëpp di woo ndaw yi Sénégal yëpp ci ñëw leen ñu xalaat nan la ñuy def ñun ñii di yor micro di jàng ñu ñuy aw nan la ñuy def ba tànn yi nga xam ne bokk ci sànni ko fële indi ñu ko sëñ Tuubaa bëggee te ndax boo xoolee ñi nga xam ne ñu ngi kuréel léegi daaj yi nga daan dégg ci ay Baye Modou Samb ak Baye Cheikh Lo yooyu yëpp ñoom ñi ngi koy jàng te mi ngi tegu ci yoon te mi ngi leer te mi ngi mel ni mu war a mel te ñun ñii am nañ xalaat ko kon ñun kenn waruñu jiitu ci loolu li waral loolu mooy am na am na ñu ma sa invité ma ñëw ak kuréel la du ma tudd tur ñu jàngaloo ma njàng mu bari enregistré bi ma noppee am na ci loo xam ne dañ ne ma lii ñun duñ ko teg dañ koy denc dañ ko kon loolu ñun war nañoo am ñu itam suñ ambition bopp suñ pas-pasu bopp ñun tamit gannaaw ñeneen a ngi jël suñu jàng di ko denc di ko répété di ko jàng te duñ ca feeñ sax ñun kon ñun war nañoo xam na suñ bopp waa xam li ñuy def lu mu doon te kenn ku ci ne xasida yi defal na la teraanga boo xamante ne bii ne la la des ci àdduna mooy delloo jukkal xasida yi kon woote bi ci gàttal na ñëpp xam ne lii tax. ñaam satu di wax ne sëriñ Abdou Lahad Diouf mi rek lañ bëgg a yëkkate ay kàddu. yu jëm ci moom ak bokk yi soog a bàyyi sëriñ Moustapha sëriñ Mamor ak sëriñ Moustapha Kane ak bokk yi doon wax yëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu jàngkati xasida yi fi nekk yëpp wax ne njàngum xasida njàngum xasida dafa am yitte ju mu laaj ndax yaakaar naa ne bu ñu delloo ci mag ñi ca daan jàngal ci kanam sëriñ bi am na am na bis boo xam ne dañuy jàngi xasida ci kanam Serigne Touba fittasu ya xaw a xaw a bar Serigne Touba ne Masamba fere yi nañ bàyyi ba ëllëg seytaane jaar na fi te booba fittasu yu xaw a bar képp la Serigne Abdou Lahad waxoon na ne ku tiim xasida di ko jàng dangaa war a mel ne gone gu ne ci am man diñ gaynde tiim ko yor xàcc am fàddam yar ba ngay àndal ak tiitaange ja nee na noonu nga war a jox xasida yi kon njàngum xasida àndut ak am poq antakum fecc sabar daa am misik am jàng xasida am loo ci bëgg nag mën nga caa dem sëriñ Moustapha Salihu yàlla na yàlla gën a guddal fanam gën a dolli wéram bañ koy laaj ca Nations Unies waxoon na ne ba ko tubaab yi ne lu tax du ngeen naan sàngara mu a café tubaab da ko wóotu ci ñun mu ne ko lu tax du ngeen tox mu ne ko dañooy am guraag pite koolaa mu ne ko lu tax du ngeen déglu musique mu ne ko dañoo am ay xasida kon lu ci nekk daa am lu ko ci doomu aadama te am ko ab te bu fa duggee dana fa def bànneex saytaane day daal di am accès ci dugg ci biir xol ba yàq la nga doon def xasida dëgg boo ko dee jàng te di ko teewlu yow ci sa jëmmi bopp da ngay yéeg di jëm ci yàlla ndax yuusilu xatti man ahabba lil ilaa bi xayri xalwati wa yakfi kulla la xasida nag bala laa mën a yéeg a jëm ci yàlla day fekk na sa xol bi nekk ci yàlla ba noppi mu mën a jël xol bi waaye du yóbbu jëmm ji xol bi lay yéegi jëme ko ci yàlla xol bi nag bu ci àdduna génnul kenn mënu koo yéegi jëme ci yàlla moo tax xasida dafa am wàccuwaay bu ñuy jaawale it wërsëg ak barke njàngum xasida mi wërsëg man na am bu fekkee moom nga cay wut waaye la cay def barke nag day fekk kooku di ci wut barke yow miy jàng te wërsëg tax lay jàng Sëriñ Tuubaa layaloon na la bu yàgg فكل من أحبني أو مالا إلا يفرسق هدى كون جاهنا يومي خمنا نجان من خسر لي ميتت كيف لا تيوب سرين توبا نينا دانا جوخ باسي خمبو أبدا يو أم خالص سنة وكو جوخي دانا لسي ونجا خيو لول وينا بلود باكي تيمان وينا بفكي لنك باركي على تحت جان دانا لبولا تران لي أدنا جوت الاخرة بوي فاتورة ملايكة ينولي تيولو خسر لي أندا جيو إذا كتبت إهتزار صباخي وصبحت ملائكة تباخي koo xam ne bu toogee di bind malaayka yi dañuy sàbbaal aras di yëngutu wóor na la loolu bokkutal nga toog ci tànt bii nit ñiy fekk su boobaa malaayka yi moom dutuñu dutuñu sàbbaal ndax malaayka doomu aadama sens contraire dañuy dox kon loolu ab soññale ci njàng mi sëriñ Abdou Lahad mi nag damay gis ne ki ñu njëkk génn ci jànkat yi la moom sëriñ Abdoulaye Seck seen génération ña ca topp mooy sëñ Xaadim Gueye ak sëñ Mara ña ca toppaat ñëwaat te yàlla tellement booleeg ñoom ñu doon ay tur tànk ma jaxasoo ñoom lool di xam ci ñoom ak sell ak bu baax xam ci ñoom it ak bëggante njàngum xasida saa yu juree concurrence moo kenn arène football ba ñooyam jànkati xasida duñu am ay ay concurrence ñee ñooy kuréelu diw ñee ñooy kuréelu diw saa yu ci duggee rek saytaane am na ci yoon te sëñ Tuubaa génn na ci jànkatu xasida bi daa war a mën a fanaane kër Mara Seck muy sëñ Abdoulaye Diouf am faw turandoo xaadim ngay fanaani kër Abdoulaye Seck am faw ngeen def seen mag jàngkat yi xasida yi ñuy seen royukaay looloo tax sëriñ Saalihu ba leen di joxe pàkk la ko tudde jox leen ko yéen ñëpp ngeen bokk fa ne Mawaahibu naa fi sëriñ Abdoul Ahad Diouf mii nag dañ koo tuddee Cheikh Abdoul Ahad mu romb fi ñëpp ñëw ci sëriñ Amsatu ne ko daaray xasida jéem a bëgg a def yow laa bëgg nga tegal ma xeer wi ginnaaw bu ma ko waxee sëñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxaa sëñ Muntaxaa doon koo xam ne xaas la ci nun xaas xaas la ci yoonu murit ndax sëñ Touba li mu waxoon ne sama yoon wi noppi naa ci na ràbb ba noppee ca sërëm ya muy xaf mm. jamono ju ne sër ba déggoog jamono rek day tàllal jël ab morsoom mais bi bi bi bi Cheikh Mahamadou Lamine di ñëw ku ne xam ne jamono jooja personnalité bi Cheikh Mahamadou Lamine Baara moo incarné àdduna bi koo mën a doon téléphone am lay jël moo la gën a jege sëñ Touba ba noppi di xalifa général des mourides ëpp la mbooloo te bu jëlee boo ko ne koo kan la mën a Alaaji Lamine Baara Fàllilu boo dee ministre boo dee député boo dee président la république daa am xale yu ñëw toog fi moom na ko sëñ bi dañoo bëgg nga ñaanal ñu dañoo bëgg bourse alaaj baar na leen fu ngeen dëkk ñu ne ko ndakaaru mu ne kii noo tudd ma wax ko kii noo tudd ma wax kii ma wax noo tudd kenn ko mu ne ko mu leen kenn du ay loxo xale yi na ko nuñ koy def mu ne da ngay jël téléphone woo ministre bi mu may leen ko daal di jël téléphone am téléphone ministre bi allo kooku kan la mu ne ko Baara Mbacke xalifa général des mourides kooku moom àgg suuf mu ne eh, demaa fee am sama ñetti gone yu bëgg bursu mu ne ko waxal ba ban réew lañ bëgg mu ne xale bi yow noo tudd xamu leen di mu ne ko diw mu ne ko ban bourse mu wax ko ko ministre bu bind ba ñetti xale yi àgg mu ne ko altine na ñëw ma may leen ko dama may lii ñaan da nga koy lijjanti rek mu jeex booba foofa la jamono toll waaye bi sëriñ bi nga xamee ne coow bari na kenn ku ne di mbel mbel yàlla dafay indi borom tekk joo xam ne du dàq aw yoo faale wut weñ xamutu tàngaay muy sëñ Sidi Muxtaar su ma saa toog ne sëmm yow yaay baj baji waaye moom ñaari loo xam ne fa mu ko teg ca poojam ba du ko sensé yoonu murit kenn yóbbu ko ci du murit du xaadir du tijaan du laayeen rassemble Sénégal gépp def leen lëkkale leen ci génn buum waxtasimu bi abdillahi jamian wala tafarraqoo innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum kon kooku xilaafa googu ba mu jotee sëñ Tuubaa da koo andi waaye bi ñu demee nag ba nga xam ne réew mépp kenn ku nekk yaa ngi mbel mbele di jaay am njàng kenn waxoon ne inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa sëñ Tuubaa rek ko waxoon sama jihaad yëpp ci xam-xam la ak ragal yàlla mu andil ñu koo xam ne ñëpp moo leen ëpp xam-xam muy sëñ Muntaxa ñëpp moo leen gën a ragal yàlla ba noppi nag ëpp leen jàmm xam nga boo amee xam-xam ragal yàlla ba noppi ànd ak jàmm koo mën a doon rek njàqare loo am boo jàkkaarloo sëñ Muntaxa sa xel sa xol dal lan moo koy waral mooy mbégte mi mu lay wan moom Bachir la mu incarné jamono ci lépp wane ne sëñ Touba mooy solution problème bu mën a am sëñ Muntaxa dana ko réglé du bari coow daa am ci fan yi ay gaay yuy tourné bokk ci isbu tarxiya nee na dañuy dox ci àllub Casamance bi sol seen baylaat yi ak maxtum yi nu roog sañu ablaat doon nee na yan ci rebel yi rebel yi arrêté leen naan e bamba bamba daal di leen di tàll loxo na ne ñaanal leen ñu ñaanal leen moo leen teggi leen yoon wi te jaar ci yoon wii fa haysuma taxaf ilahakal ahad yaxaf ko min xaw fi wa kulla ahad sëñ tubaa nee na boo ragalee yàlla ba ragal yàlla ngay dëgg ci yow lu ragalul yàlla da lay Mm-hmm. kon jataay bii mm-hmm. jataayu sëñ Touba naa wax ji du gudd ndax li ma doon wax lépp wax ngeen ko xanaa sof ci sëñ Moustapha mi xam ne moom la sëñ Bion di mi nga xam ne moo taxawal lii muy teer li sëñ Fall Gass wax sànq nag ci mbarke ak wërsëg ci laay dëkk rek bara ñoo xam dañuy sàkk marché bara ñoo xam dañuy sàkk wërsëg muy ñaar yu niroo te bokkuñu wërsëg day defub jal nga mën koo làmb daj ko man koo xool gis ko soo sàkk soo soxlaa sàkk ca waaye benn mu jiit la wala nga jiitu ko benn nga dem bàyyi ko wala bala ngaa dee mu dem bàyyi la fi barke nag doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko mën ngaa tëdd ba guddi soxla su rëy dëkkal la nga lamb sa poste job jóg dërëm waaye bala ngaa soxla sama loolu Mbàkke koy def boo demee ba dee la daan bi la jiitu ca bàmmeel bi see ci sa njaboot bàmmeel loolu ngay fàq yàlla na ko yàlla yombal ak mbooloo ko ñëpp kon nag yéen ñi jàng xasida xasida daa foor lool ndax day kàddu suñ tuwa gannaaw alxuraan dara gënu koo foor ak kooku yàlla seeb nag te nit ñi fi mu toll yàlla dimbali ñu bëgg alxuraan bëgg xasida ndax boo gisee xale yi tuuti yi mokkal alxuraan ak xale tuuti yi nga xam dañuy mokkal xasida xasida yi gënoon a jafe ñu koy mokkal kon xam ne am na sëñ tubaab loolu di sotti ñoom loolu nag ku leen ci dimbale ngeen loola maa dugg ci seen xol mën a dugg seen dënn yaa ngi liggéey sëñ tubaab dëgg-dëgg liggéey sëñ tubaab nag a sell kon nag lii nga sos te sëñ tubaab tax yàlla ci yàlla defal ndam yàlla na yegg ba nga sosaat yeneen tey yëf yi noonu rek la sëñ Sall dana sëñ tubaab dafa waxoon ni am ko doon laaj ne ko wax sa daara yu bari ngay tabax la jul mu ne ko sëñ Tuubaa daf ne deel tàmbali ma yàggale may tàmbali ma yàggale kon nañu tàmbali bu ko defee sëñ bi yàggale kon maa ngi sant bokki Baay Faal di sant bokki fi tey yëpp di sant góor di sant jigéen di xam ni mbégte la ci noonu fi nga ko defee ak ki nga ko defal ak nga ko tudd yëpp am na solo ndax sëñ Tuubaa nga def waaye ci njabootam suñu plan bu tudde defe ko ci parcours Cheikh Ibrahima Fall kon dañuy wax ni lépp sëñ bi la